dama koo fas yéenee woor ba mu jeex jaamu ci yàlla. ba fen gi bañ bañ bàyyi caxasa bi bàyyi lépp. waaw Zal yow. man maa la wax loolu dama ko dama ko war a bàyyi di ko bàyyi si weeru koor nañ nekk nag. dem Màkka de soppi na trop waaye soppi dul budul weeru sax fen dañ war a bàyyi. yéen eh, di fen sax alhamdulilah rabbil alamin wax. ndax Zal mi bu demee ba taxaw fii di baalu ni ñi àq. ndax jaxase gi mu daan jaxase. loolu lu rafet la. ko mooy li ma doon wax ma mi keroog. dañ leen bokk nday bokk baay. Hmm. rafetoo moo gën lépp. jéggal nañ la ci xol bu sedd guy. yéen yee bokk nday ak baay. yéen man ngeen bokkal nday baay wax. yow yee del mujjee wax nag. eh eh yow gandu yow yu bëy de war ngaa réglé de wo. waaw eh, sa sa kilo bu gàtt. kontaan naa si yow yow. kii moom yu gàtt mii muy sol nii nag moom. Zale yaa ngi a tooñ de. lii boo si weeru koor mais wax kay si nag. kan yi ngay def nii boo ko ci weeru koor. xam nga lan la dama bëgg seen histoire nga génnee ma si fekkew ma fekkewaanu ma na nga na ma génnee si histoire vraiment yéen a ngi def lu baax parce que lii dafa baax quoi tey jar nañu delloo leen jukkal quoi lu toll ni équipe nationale gagné c'est obligatoire ñu feetal leen. booy loolu moom jëru moo la koy wax yaa ma ko gën a xam Sadio Mané dugal dañuy planti bi daa jël nga koy répété waat ah am ah waay seen dof bi mi ngi existé ci kër gi ba tey kon ah. naa si c'est ko mënoon a waaw boo leen ko gisee kon man daal loolu laa leen doon doyee ngeen jéggal ma fen yi dama koy bàyyi woor koor gi mu jeex jaamu si yàlla yàlla jégal ma alhamdulilah ndax kër gi am jaamu sax nag kontaan nañ tey loolu moom bonne nouvelle vision boobu laa jël quoi day yow Lisa kii yow la yow laay waxal kii yow la eh may ma sama jàmm ah damaa dëkk samay dëkkandoo man damaa faale ñi nga dëkkal ñooñu dañ ma tax a jug yow yaa ma tax a jug yow te yow laay waxal yow Lisa li nga def nan nga ko mënee loola ko jaral xamoo lan nga def. yow ñu nekk Maroc liggéey sunu xaalis nga ni tiru daw ak xaalis bi ñëw fii nga naan ma lan laa def yow lan moo tax bi ngay ñëw waxoo ma dara bien sûr xalaat naa ko bu baax xalaat ko moo tax ma doxalee ni ma doxalee dañ ma woo cas urgent il faut que ma retourner ma ñëw mais loo bëggoon ma def ma toog di la xaar ana sa téléphone pourquoi mënoo maa woo s'il te plaît di nga toll foo xamante ne doo tal téléphone est-ce que xam ngeen loolu taluma woon téléphone li ma gisoon mooy que ma ñëw Sénégal parce que dañ ma soxla est-ce que jéem nga xam lan lañ may doyee ak lan la soxla bi non dom ya yow tamit ñëw Sénégal xajee ko lool rek la gis yow bi nga démé bi nga joggé Maroc ñew fi bàyyi ma fa est-ce que xam nga man lan la fa daj ma dund fa lu metti te kenn waral ko kudul yow li man lima daj Maroc mënuma la sax wax nga ñew tok fi nga né yaay nga woté grande dame ci koñ bi nee nga dangay dund social yow li ngay dund gëmoo nga ne nga wor gis nga sa koor gi bi bo nga teel wor wori bi mi mom te xamni ne sa koor gi xoolal da ngay wor ba weer bi dee te ci am dara. duma la may dara. côté di vrai yow ya osé ñëw toog ne ma sama koor gi man gëmuma ci dara man tama nek ak samay nawle nek ak ño xamantene dama leen di soutenir di wor ta yalla tax nga ni man gëmuma sama koor. li ngay def. d'accord merci. sa koor gi gëmoo ko gëmoo li ngay def waaye dinaa la waxaat ni la nag. waaye lenn rek laa la yëgal gis nga xaalis boobu maa ko mën a am waaye xaalis bi mënuma muy naa la ko ci xol bu sedd guy. waaye nag. non eh, eh, eh, ma bi ngay wax dama ne tekk déglu la. gis nga xaalis boobu maa la ko may ci xol bu sedd guy dootul tegootu ci sama loxo waaye nag dinaa la xamal leen gis nga mën ak yow ci koñ bi ñëw naa du yomb. bi woo da xaw ma dangaa woor nga wax te li ngay woote gëmoo ci dara. pardon sa ma ne la xaw ma dangaa woor nga wax xaw ma wooroo ma ne sa koor googu bi yóbboo nga wari ko ndax li ngay woote gëmoo ci dara maa ngi yow ci koñ bi ñëw naa du yomb ndax duma la may dara. pour man rek ngay diir mag. maa ngi dem nag te bu ma ñëwaatee. li nga xam ñëw naa la porte est grande ouverte